national euh, ay profil ñu ngi dessiné wu pour jiite li nga xam te ne moo di présidence bi ñu jàpp ne Ousmane Sonko dafa war a bàyyi primature ñëw assemblée nationale hmm. ban lecture nga ciy def personnellement lecture bi ma ciy def mooy déjà étant le président de l'assemblée nationale vous hmm. êtes euh, la seconde personnalité de de de l'état de l'état oui ça c'est important étant aussi première ministre avec le projet qu'ils ont mûri, mmh. ils le projet. Donc certainement, M. Ousmane Sonko doit être entre l'enclume et le marteau. Mmh. ñii dañ naan ko demal fii ñii naan ko demal fële mais moom est-ce que est-ce pas en tout cas nit boo ko falee da koy wóolu. Mhm. da koy bàyyi mu doxal lu mu def baax na. mais yow tey boo boo ko doon jàngat personnellement ak sa expérience moom en tant que comme ni nga ko waxee kuy incarner projet bu ñu yàgg a teg. mu mhm. nekk au sein de l' exécutif mooy gën wala mu dem ci beneen pouvoir à saval législative assemblée nationale. bon en fait c' est une question qui est très difficile. parce que am nañu jàpp ne bu nekkee di di wéy di continuer nekk primature mën na créer benn dualité entre moom ak président Diomaye donc pour mu effacer wu dafa logique pour que mu dem assemblée nationale. bon écoute hein, mhm. est une question très difficile à répondre. <laughs> <laughs> comprendre nga. mais analyser ma ko rek. voilà donc man sama analyse personnellement. Mhm. su ma sañoon mu dem assemblée nationale nekk la deuxième personnalité de l' état. au même titre que le président de la république. Mm. avec toutes les garanties que ce que cela cela mhm. parce que askan bi ñoo ko fal mu jiite les. fal ñëpp. dafa jot nag léegi mu fal boppam. étant président. de l' assemblée nationale moo fal bopp. maanaam mu bañ a nekk foom te ne signature moo ko fay teg wala moo ko fay yëkkati. waaw bon toujours en parlant est-il mun na nekk président assemblée nationale ba pare di collaborer avec le premier ministre en termes de la vision du projet ok ak coordination bi parce que c'est une équipe en fait mhm. nga nekk président assemblée nationale ça veut pas dire que ni da nga da da nga croiser les bras ci gouvernement bi mhm. te aussi y a encore une une autre cacophonie qui risque de se poser parce que déjà y a l'exécutif il y a le législatif. Mhm. et yàlla y a le judiciaire. Oui. Est-ce qu'on peut être au niveau du pouvoir législatif et interférer au niveau du pouvoir euh, du pouvoir euh, exécutif. Mhm. Donc yàlla y a séparation des pouvoirs. De toute façon, il peut pas il peut pas être partout. Mhm. Mais bon, na xool li nga xamante ne nii aussi vraiment foofu la gën a sentir boppam. gis ni foofu aussi la jën a mun a liggéeyal réewam. Mhm. c'est vrai que bu nekkoon assemblée nationale avec aussi tous ces projets de loi. ak loi bi mu yàgg a kaas injustice yi mu yàgg a kaas. Mhm. man je pense que lii jën a tax sénégalais yi bëgg ko lii jën a tax sénégalais yi accompagner ko je pense que bu nekkoon assemblée nationale mën na ko régler. Mhm. teg des institutions yoo xam des loi qui sont très fortes comme Obama li mu doon wax. l'Afrique n'a pas besoin. de gens forts, mais il a, il a, il a, il a, elle a juste besoin d'institutions fortes. Mhm. donc institution yi loi yi ñu xool nan lañ koy jubbantee et ñu teg fi loo xamante ni ça sera pour l'éternité. d'accord ça sera pour pour l'éternité alors dañuy laal mhm. tuuti culture parce que tamit. ku la xam-xam ne artiste nga. Mhm. mais ñu gëj a gis à part single bi nga defoon ci élection yi say production. côté album. côté événementiel. côté tournée. donc lan moo waral lëlu boobu noonu. voilà lëlu bi njëkk a njëkk am déjà je lance un appel au président de la république. am na ñu ne politique bi dalaa laa nangu ci côté culture bi. non non non du loolu sax. <laughs> mais sa réew bu soxlaa da ngay taxaw. man sama réew bu bu soxlaa damay taxaw. donc par rapport à la musique nous avons un problème avec l'industrie musicale au Sénégal. boo seetloo Sénégal li muy yaatoo yaatu yaatu ñaari artistes nga fiy dégg. sur le plan rap boo xoolee suñu petit frère yi bu weesoo Dip Mm-hmm. ngaaka ma koy nuyu de passage mu nekk mm-hmm. sama booy bu baax booy bu cool ngaaka blend te booy aussi ay guerrier lañ ay mm-hmm. ñafekat lañ mais bu ñu fàtte ni y a des milliers de groupes au Sénégal ouais. donc c'est des groupes qui créent de l'emploi groupe bu ci nekk y a des y a plusieurs personnes tey jii boo ko boolee y a combien de centaines de milliers de jeunes qui sont dans le dans la culture urbaine par exemple mm donc le président doit penser à ça Parce que le hip-hop, c'est vraiment une entreprise qui génère beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emplois. Oui. Et actuellement, san ne va pas. Le hip-hop ne marche pas. Dégoto podium, ouais. dégoto concert, mm -hmm. événementiel dégoto ko. Il n'y de promoteur. Au contraire, artistes yi ci boppam sax. ñoo soppaliku nekk ay promoteurs. Mhm. pour mën vivre de leur art ak pour mën a tekk yenn affaires yi. donc nañu accompagner les jeunes. à travers des formations et à travers des financement parce que loolu dina dundal vraiment artistes yi man j'ai eu la chance c'est vrai que je suis artiste bëri naa ay feem nag des fois ma def benn affaire boo xam ni mun na maa dundal pendant six mois <laughs> wala pendant un an parce que xel mooy liggéey te au-delà de sa aussi jàng naa mm-hmm. am naa samay lijaasa mm-hmm. au-delà de ça aussi maa ngi nekk ci yeneen liggéey yoo xamante ni ça n'a rien à voir ni avec la musique, mm avec mon business personnel. Je veux dire euh, la, politique, ouais. ni avec la musique, nii avec la politique. Mais liñ naan jënax day bëri pax. bëri pax gis nga réew mii boo ci bëggee dund il faut nga bëri pax te dafa am yoo xam. maanaam da ngay pousser yenn artistes yi à ce que ñu am esprit euh, di entreprendre. non da ngay entreprendre. bañ yam rek ci rab bi. da ngay entreprendre man je travaille avec beaucoup de personnes. ñu nekk à travers le monde. Mm-hmm. yaa ngi comprendre ci ay liggéey yu bëri et j'invite aussi les les les jeunes à travailler dans les crypto-monnaies une fois Ousmane Sonko dégg naa ko mu ne les crypto-monnaies les bitcoins c'est une ouais. chance pour la jeunesse mm. j'invite la jeunesse à découvrir ce que c'est les crypto-monnaies comment ça se passe bitcoin parce que ñu bëri xamuñ euh, naka lañ ci mën a liggéey ak lan lay jëriñ aussi xam nga <laughs> actuellement hmm. àdduna yëpp dañ koo jël tënk ko ci xaalis. dañ koo jël tënk ko ci Wave tënk ko ci Orange Money. tënk ko mhm. ci transfert bancaire yi avec les shifts. te américains yi bi ñuy xeex ak Russes yi dañoo tëj shift bi shift bi doxatu. Mhm. actuellement les Russes ils utilisent les crypto-monnaies c'est la monnaie internationale c'est électronique. Mm. et personne n'a monopole. kenn mënu ko contrôler. tey jii pour ñu yónnee la dara. on préfère ñu yónnee la ko par crypto monnaie c' est vrai que am na ay plateformes yu yu mag comme ay Binance. Mhm. comme ay Trust Wallet y en a d' quoi. parce que crypto yi dañoo bëri. Mhm. c' est vrai que mun nañ ko contrôler yaa ngi comprendre mais c' est un moyen aujourd'hui de faire du business kenn ku nekk par exemple Japon. yow nga nekk fii tu as besoin d' acheter quelque chose. mun nga ni ko ñaata la mu ne la temps la nga ni ko comment je paye mu ne la tu m'envoies en USDT wala tu m'envoies en BTC bitcoin. Mhm. mais da ngay jël sa bitcoin sa wallet jënd ak jaay la commerce international. Ouais. et également aussi le Sénégal le gouvernement sénégalais à à penser un peu au BRICS à collaborer avec le BRICS quoi. Mhm. Brésil, Russie, Russie oui, Afrique du, Afrique Sud, Donc déjà ces collaborations c'est important. Mm -hmm. te damay vraiment gouvernement bi aussi ñu xalaat par rapport au crypto parce que le système français ñun dañ koy combattre man je fais partie de la génération qui veut l'indépendance de mm -hmm. l'Afrique qui veut que la France vraiment arrête de contrôler notre économie. Hmm. suñu banque centrale bi France na ci génn loxoom. est-ce que comprendre nga. le la là j'invite encore une fois l'État du Sénégal ñu revoir CFA bi. on doit sortir du CFA parce que c'est garanti par la France la France à la fois ñun suñu alal mooy garanti ñoom seen alal. te ñun suñu alal ñoom dañuy lekk ñun suñu alal ba pare contrôler gis nga réew pour mu jëm kanam aussi. dafa soxla indépendance. liy dugg ci réew mi ak liy génn ci réew mi c'est pas les Français qui doivent contrôler ça ñun ñoo ko war a contrôler suñu bopp. Mhm. donc je demande à l'indépendance financière économique du Sénégal. oui te man damaa nekk ci loolu te dama gëm loolu. Mhm. mais waxagoo lan moo la téye temps yi ci ci kaw scène bi. non scène production aussi. scène bi actuellement man j'ai enregistré quatre albums. Mhm. j'ai enregistré quatre albums. bëgg naa am am temps. parce que je travaille aussi avec des partenaires yoo xamante ne nii ci côté musique bi lañ nekk. Mhm. je veux vraiment faire une tournée mondiale en fait. ak album yooyu bu génnee. album yooyu bu génne parce que xam-xam bi mu ngi fi. Mhm. talent bi mu ngi fi. niveau bi mu ngi fi. te à un moment donné nag il faut que ñuy jéem a dem conquête. vers d' autres pays parce que am na pays yoo xamante ne ñun suñu population par exemple on à à dix huit mais boo xoolee Nigéria ils sont en combien de centres. Mmh. c' est plus de cent millions. cent millions ouais. nga jël par exemple. réew mu mel ni Inde. Inde c' est milliards. mais pourquoi pas ñun duñ def collaboration ak ay Indiens côté Inde génn album tu vas vendre combien de millions intelligence bi foofu la toll. la musique ça demande des recherches. faire une musique universelle loolu moo a xaw a tardé. mais ça va ça ça demande aussi de l' adaptation parce que aussi bu ñu xoolee rap bi la wala léegi drill bi ngay gis donc world music bi très rare ngay gis ñu koy utiliser est-ce que loolu aussi dina mën a génn. Euh, dina génn dans la mesure où la musique est l'art de combiner les sons d'une manière agréable à l'oreille et intéressant à l'esprit. Hmm. booy dañ nekk ci benn tendance. loolu di hip hop loolu c'est une juste une branche du hip hop c'est une branche de la musique. la musique okay. elle est universelle. oui. comprendre nga. et mois j'aime pas imiter les Américains. parce que je m'appelle parce que parce que man je m'appelle Red Black. Mm -hmm. Red Black c'est l'Afrique. Oui. Quand on prend le noir, c'est l'Afrique. Mm-hmm. C'est le berceau de l'humanité. Oui. C'est l'universalité parce que ñun ñëpp ñuul tubaab bi indien bi ñoom ñëpp ci noir lañ jóge en tant que adept de Cheikh Anta Diop. ok oui. donc c'est l'unicité dans la diversité diversité boobu yëpp fenn lu jóge mooy Afrique d'où c'est le berceau de l'humanité nga génn foofu nga ñëw ci rouge bi dama koy simplifier parce que bu ci nekk am na fond am na forme hmm. bu ci nekk am na dualisme bu ci nekk mais le rouge c'est l'universalité parce que tous les sangs nit ak koo mën a doon benn deret bi nga yor donc c'est l'unicité dans la diversité mmh. quelle que soit la diversité on est dans l'unicité parce que le sang tous les sangs restent rouges deret yëpp benn la loolooy red black moo lay wan ne àdduna ñëpp benn lañ ñëpp Afrique lañ jógee jàppaa des différences entre mais lii très rare léegi nga gis artiste bu la ko mën a defal ci turam. ah tamit loolu bokkul lu ci lu gën a yéexal. mais xam nga ñun nag xam nga ñun ay rappeurs yu démb lañ. Euh. tu vois. Quand, non ay rappeurs yu démb lañ. Hmm. sama nijaay yal na ko yàlla yërëm xaare ko aljana. amiin mu nekkoon village des arts. Hmm. Ibrahima Kébé ñu naan ko Pape Kébé. Hmm. bi ma bëggee nekk peintre mu ne ma noonoo bu ci dugg ma ne ko ah, duma ci dugg amul problème comme j'étais un amoureux de la musique je me suis inspiré de la peinture pour tuddee sam bopp Red Black en lui donnant un sens quoi. <laughs> un sens universel ouais, moo am signification. <laughs> mais mais mais yaa ngi ne rappeur démb nga ñu bëri jàpp nañ ne nag yéen a yéen rab bi parce que yéen jël booy rek tënkoon leen rab bu dëgër bi rab bu wow bi ba ñëpp jàpp na peut-être <laughs> loolu moo war a continuer tout le temps ba nit bu amee idée sax pour dem découvrir la neen du ko sañ a def. moi jamais été dans hmm. man la la la musique qui m'a rendu populaire sama premier morceau. la paix en Casamance. Hmm. parce que man j'ai été adopté à la case en Casamance. tey bu ma soxlaa kayitu juddu Casamance laay dem. Mhm. Oussouye laay dem Diakène Wolof laay dem. j'ai vécu la guerre. Mmh. j'ai la rébellion. sama professeur monsieur Ndiaye bi ma yoroon CM2 dañ koo rey. ci oh. vois. Mhm. sama benn grand boo xam ne chaque jour ci man la doon fanaan c'est un, un militaire vieux. Mmh. il est de il est de Thiès. Oui. Mbeng dañ koo rey. dañoo rey ñu bëri ñoo xam ni dañoo nekkoon usuy ma xam leen ñu xam ma. ci conflit bi. ci conflit bi j'ai vécu ça et lorsque j'ai fait la chanson tout le monde pleure ku ko dégg da ngay jooy c'est la chanson qui m'a rendu populaire. Ouais. et c'est la chanson qui a fait de moi le chouchou des étudiants parce que moment boobu j'étais encore à l'université. Mmh. 2012 ñëw avec engagement bi ma am. j'ai vu que y une projection de père au fils bu ñu bëggoon a def ci pouvoir bi. Mm-hmm. ma bañ ko génne góor gi na dem na dem a dem a dem ça a été un tube international ouais. un peu partout dans le monde euh, j'ai eu des entretiens un peu partout dans le monde mu nekkoon un moment déterminant ñu yàgg xeexal suñu réew mm-hmm. te musique yooyu yëpp amul bu dëgër bi amul bu nooy bi man je prône le rap intellectuel quand l'intellectuel écrit on sait kii dafa jàng mm-hmm. texte bi day am sens rimes rimes yi day am sens parce que je suis littéraire da ngay mën a bind da ngay mën a communiquer quand communique avec les gens. Mm. dafa am code booy utiliser. man mun naa benn morso jooy loola. mun naa benn morso reetaan loola mun naa benn morso fecc loola. yàlla may na ma loolu. Hmm. nekkuma ci dëgër yeex yooyu de non non man ci feeling bi laa nekk. ci créativité quoi mais tout à l'heure wax nga loo xamante ne fan yi xawoon na fi jur coow mooy. Mhm. conflit bi am foofu la ci Casamance. ñu gis ne France mu ngi doon émissé wu un tout ci biir conflit boobu ba ñu naroon a bind livre. boo xam ne mhm. dafay inciter à ce ñu jox euh, Casamance li nga te ne moo di indépendance am Ousmane Sonko ak autorité yi daal di anticiper tere boobu livre. Euh, naka ngay jàngatee euh, situation boobu. am tamit Sénégal ñu si nekk. li xew Mali les Français ont créé le terrorisme. Hmm. ci Mali. lii xew Burkina Faso. les Français ont créé le terrorisme fële ci Burkina Faso. Mmh. boo xoolee Afrique fépp fu ñuy wax terroriste. ci Sahel bi rek. ce les Français ou les Américains ñoom ñooy créer seen terroriste bopp. Mmh. par exemple fi nga xamante ni nii moom moo ëpp alal ci Mali. gars yi fa. terrorisme. ba pare armée française bi ne armée malien bi fii waru leen. fay agsi ah. c' est eux les terroristes. tey bu ñu xoolee bëgg jaar ci Ousmane sonk sottiwul bëgg jaar ci Jomaay pour privilège yu ñu doon am ak continuer di nox di nax sénégalais yi ak di noot sénégalais yi. Hmm. mu nekk beneen forme de colonisation. gars yi bu ñu taxawee bañ dañuy jéem a yëngal Casamance pour un peu le Sénégal. Hmm. et un peu le Sénégal. Mmh. donc ça c'est de l'ingérence et encore une fois comme j'avais dit gis nga France loxoom da ko war a génn su économie sénégalaise bu fekkee dañoo am ay bailleurs ça sera du gagnant-gagnant mais suñuy banque centrale suñuy alal liy dugg di génn c'est pas à la France de contrôler sax et donc nañu am fulla nañu am fayda mhm. képp koo xamante nii da ñëw pour liggéey Sénégal. mu nekk gañaa gagnant parce que France rek nekku fi ci àdduna bi. y a hmm. d'autres partenaires. yaa ngi nii. Inde mu ngi nii. Russie mu ngi nii. actuellement on a une le le Sénégal tout le monde besoin du Sénégal. donc nañu revoir les contrats pétroliers lépp nañ ko revoir. mu xamante ni léegi gagnant gagnant la nekkatul ñëw exploiter oru Sabodala bi nga xam ne sénégalais yi mosuñu ko gis de. non hmm. non. suñu bijoutier yi dañ ko dañ cee war a gis seen bopp réew mi sénégalais yi il faut ñu gis ci seen bopp te France France nag dañ ko woon fulla woon ko fayda te bu ñu nangu kenn kuy ñëw di taal suñu réew mi wala ngay ñëw di ñu intimider di créer ay affaires ñëw naan woy dañ leen di dimbali alors que ñoom ñooy taal te ñoom ñooy sapeur pompier yi hmm.